internet yu ñu suivre à travers Desprod amati nañu mbégte kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen euh, comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne rek fépp waaye mënti nekk ñu ngi lay jox cër bu mat sakk naan la salaamaaleykum euh, gannaaw noonu ñu baaxoo di dugg ci. Euh, Euh, prison yi ak ci hôpitaux yi ñaanal ña fa nekk suñu borom teggi leen yooyu la nattu waaye tamit euh, ziar bépp kilifa diine kilifa aada di leen di ñaanal waaye dellu sàkku ci ñoom ñaan suñu borom wéral seen i cër ñoo di seen i fan ñu yàgg ñu gunge ci barke sangu-sang yi gannaaw noonu nag euh, plateau bi bu ngeen gisee tey nu mu yànjeen ñi tubaarkàl la ñu ànd ko nag ak ki nga xamante ni moom mooy maman Aïcha ak ki nga xamante ni moom mooy sëñ Xaadim comme niñ ko baaxoo di defee rek saa ne yaa booy ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw Mati maa ngi lay fay mhm. maa ngi lay fay comme ni nga ko waxee rek bu nu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ni ci prison yeeg hôpital yeeg képp ko am ndogum àdduna rek wala nga am naqar wala nga am stress ñu lay ñaanal yàlla teggil la ko di ziar sama wasila Cheikh Roqay Fall borom ndigal di ziar rek waa Gambie ñëpp ak mhm. waa Sénégal sama doom yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar mhm. waa Mbàkke bool gëm a jógee ak yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan trop bokk ak yow plateau bi ak sëñ Bàmb mi xaadim mhm. turóomu màgg bi <laughs> jërëjëf yaay booy ah, sëñ xaadim ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw soxna Mati maa ngi lay fay di nuyu say internet yëpp di nuyu sénégalais yëpp à travers le monde entier di leen masawu si liggéey bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko démb di leen wax ne yàlla na leen yàlla aar rek la ñuy wax parce que démb defe naa ne subir ngeen fa ay violence yoo xamee ne tey jii nii kenn mënu ko accepter ci réew mi te je pense que ne le chef de l'État war na jël ay dispositions si yooyu ndax ku nekk am nga droit à l'information seen liggéey rek ngeen doon def kon tey bu ñu gisee seen naataango fële sa TFM ñu dundaloo ko lu nu mel kon yéen ñëpp la ñuy boole rek masawu leen di nuyu ñëpp di santaat ñëpp di la wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf rubrique baa ngi noonu nag ñu ngi ko dëppee sous l'arbre loolu nag sama turu yaay la yaay booy tur boobu foo ko jëlee man affaire daf ma jaaxal ba léegi. <laughs> sous l'arbre à palabre. Mhm. dama ko jàng genre récitation la woon. Mhm. rek jamono yooyu ñu nekkee primaire. Mhm. loolu dafa yàgg nag ndax 68 laa dugg école sous l'arbre à palabre. sous l'arbre à palabre. mu na lu nekk. mooy maanaam pénc mi mm-hmm. parce que bu njëkk tribunal amuloon ci mm-hmm. pénc mi lan doon àtte suufu garab yi suufu guy gu rëy wala garab gun daan wax doobaali mm-hmm. xam naa ne xamutul xamuleen sax doobaali doobaali da koy gis mu am lu mel ni ay euh, ay kii ay kiiwu mel ni ay jaan yu xonq noonu lay mel mais ci garab gi lay lay nekk daal fooy lay doon mais day mel ni comme jaan yu xonq yi ni ñuy bindoo noonu la noonu la kii bi di mel mhm. dóobaali mhm. foofu lan daan wax toog di waxtaan mhm. ne déggoo wolof ñaay nee na garab gi ngay toog di waxtaan sémmiñ bi koy gor garab la xam nga garab bant bi ngay téye di ko ko gore li ngay dóor mooy weñ mais mhm. bant bi ci boppam mhm. mooy téye weñ gi mooy mooy mooy moom la ñuy wax sémmiñ sémmiñ mhm. dëgg la loolu mooy sous l'arbre ay ca man ma dagg ko ni sous l'arbre xam naa ni prononciation boobu duma ko mën mais naa jël sous l'arbre rek di ci dosé waale <laughs> ci suufu garab gi taatu garab gi ñu waxtaanee ko tey nag ñu war a waxtaanee ponk yi am solo bi ci jiitu euh, dañuy waxtaanee li nga xamante ni moom la waa euh, euh, bennoo Ah, ah, ma naan bennoo sax maa ngi tooñ de <laughs> waaye yeewi askan bi nga xamante ni moom lañu amal démb fële ca place de l'Obélisque mu mel ni rek ah, juróon na ay coow lu bari suñu yenn ci suñu ay naataangoo muy waa fem daj fa lu metti ndax bi ñu ñëwee dañu leen buntu xataal ni doo leen fi ñëw ndax seen njiit Youssou jigéen Ndour dafa am lu mu yëkkati wax ko ci kii di Ousmane Sonko yaay booy noo gisee loolu waaw gis nga Mati dëgg la yàlla bëgg yonent bi dëgg la bëgg ñoom dañuy wax ci Macky Sall lu bon mhm. yaa ngi may dégg mhm. dañuy toog di wax ci Macky Sall lu bon mhm. kon bu fekkee ne Youssou Ndour da leen a wax loo xam ne ni da leen a metti dañ koo war a mën a muñ ndax ku nekk xam na ne euh, Youssou Ndour ak Macky Sall moom benn lanu waaw benn lanu ragal pété day xañ wërsëg Mm-hmm. waaw xëy na gis na loo xam ne ni neexu ko mu wax ko ci côté boobu ñoom itam dañuy gis loo xam ne neexu leen ci côté Macky Sall ñu tax a wax ko mm-hmm. fii senegal la rek ñun ñëpp ñoo war a bokk ndey bokk baay bokk lépp mm-hmm. on est ensemble bu ci kenn dee woon tey ñoom ñëpp ñoo ñu di wax nga gis ñu daal di regroupé boo seetaanee ci YouTube bi gis leen ñoom ñëpp ci armée lañu taxaw ku ci nekk di gërëm sa moroom kon nanuy def loo xam ne nii lu dëggu la lu logique la mhm. Youssou Ndour am na droit ci réew mi la dëkk te def na fi ci réew mi loo xam ne am na droit tey ji barke Serigne Touba Mbacke présenté wu mhm. doon candidat présidentiel mhm. ah <laughs> ay ci suñ xaadim boobu lay jëf noo ko gisee <laughs> waaw di ko ñaawlu rek soxna Mati ndax comme ni ma ko waxee woon sànq moom laa ubbee nee ku nekk si yéen nga xamee ne ay journaliste ngeen am ngeen droit joxe ay information yu leer te wóor askan wi ndax loolu rek moo leen tax a jóg te je pense que fayuñu leen li ko jar lu tax ngeen dem di risque seen bakkan kon tey bu ñu gisee lu ñu mel ñu dundaloo ko waate FM Youssou Ndour est libre ne man président Macky Sall laa ànd ak loolu cela ne veut pas dire que ne waa TFM moom la ñu àndal ndax ñu xam nañu ne TFM am na ay journalistes yu xare ñu libre comme ku si mhm. mel ni Papa Ngagne Ndiaye wax ñu waxam Pape yu Fall mii nga xamee ne ku nekk dañu koy nawloo TFM nekkoon te je pense que ne jëloon na ay seede yooyu bari yu rafet teg ko si kaw Ousmane Sonko te je pense que jotul benn menace foofee nga xam ne foofu la doon liggéey ba jóge fa bari na ay Babacar Fall ku ne te defe naa ne boo nee Babacar Fall bokkoon na si ki nga xam ne posé na question kii di Mansour fay ba mu ne ko dinaa la porte plainte te ñëpp xam ne ne Mansour fay boo frère président la kon je pense que bu ñu ñëwee jël waa TFM mhm. di leen teg si yenn di leen teg yenn baaraamu tuuma yi nga xamee ne c'est mhm. inacceptable wax dëgg yàlla je pense que ne am na leneen loo xamee ne war loolu la ñu war a gën a mën a focaliser lu dul loolu mais loolu yëpp lu ko waral mooy ñoom politiciens yi mhm. parce que boo jëlee ku si mel ni Imam Dramé wala ñeneen na ñeneen ba si Ousmane Sonko en mhm. moom si jëmm boppam avant euh, yi nga xam résultat yi di wàcc moom moo waxoon dem leen ngeen attaqué TFM ak 2STV yi parce que ñi ngi fabriqué ay résultats mhm. te je pense que depuis boobu ba léegi képp koo xamee ne farale nga Ousmane Sonko saa yow coow amee wala manifestation am da ngay focaliser wu jéem a xool naka ngay destabiliser waa TFM mm-hmm. Youssou Ndour am na droit ànd ak président Macky Sall loolu moom la concerné et je pense que ne Youssou liggéey na si réew mi loo xamee ne président Macky Sall si boppam liggéeyu ko mm-hmm. Ousmane Sonko bi nga xamee ne tey unk la parmi nous mm-hmm. unk nag mooy bu nekk si biir kër nga xam ne fu mu sawee si lekk euh, dangay ragale ko lekk parce que ñëpp xam ne ni unk bu saw si lekk boo ko lekkee euh, da ngay faatu tey Ousmane Sonko unku la si biir réewu Sénégal te je pense que ne balaa ñoo éliminer ay ndaw wala ñuy éliminer ay Sénégalais yu nekk je pense que ne moom dañ ko war a pour coow lu jeex parce que poson la si réew mi ak lu ñu mën a xew mais man daal maa ngi masu waa TFM bu paree na yéen tamit am ngeen si part de responsabilité parce que démb gis ñu benn euh, presse wala jël euh, défense ki nga xam ne mooy Mamadou Diop journaliste bi ak caméraman bu mu àndaloon mhm. je pense que ne sax média bi jëm boppam caméraman ak dañ leen doon filmer bu paree publier wu leen gis ñu kenn koo xam ne défendre nañ ko mm-hmm. loolu nag maa ngi koy ñaaw te je pense que tant que yéen yéen jëmb bokk booloo wala nekk benn mm-hmm. duñ leen mës a parce que ngoone Dakar Buzz dundoon na loolu fële sa permanence su APR te lu mu mm-hmm. waxoon leen kese la dégg naa président Macky Sall si jëm boppam meer na ndax list bi nga xamee ne def ngeen sa ay jiixi jaax bu ñu bëri jàpp dañuy rejeté seen list boobu ba mu ko waxee ñëpp dañ ko yuuxoo di ko jéem a napp wala di jéem a dox si waaye heureusement ngoone du ragal loolu nag yéen ñi da ngeen si war a jël seen responsabilité mooy ngeen booloo mm-hmm. ba képp koo xamee ne yéen ngi liggéey si presse ñu jox leen seeni valeur ak seeni dignité ndax yéen wax naa leen comme ni ma ko waxee sànq mm-hmm. fayuñu leen lu tax ngeen koy def te yéen a ngi risque di jël seen bakkan mm-hmm. loolu daal man maa ngi koy ñaaw oh, kon daal suñu déggee ni nga waxee mooy euh, bii loolu amee ci waa TFM yi presse bi yëpp dañoo waroon àndandoo boycotté euh, programme manifestation bi man foofu laa doon xaar presse bi yëpp waruñoo woon filmer boobu manifestation te yàgg naa ko wax nee naa leen tant que leen deux jours wala trois jours wala sax une semaine yoo xam ne journée sans information lay doon boobu Sénégalais du ñu xam seen àq parce que lañ fa def démb lu ñaaw la te responsabilité Khalifa Sall ñëpp ay leader ñoo xam ne tey Ousmane Sonko ngi noonu am na ay journalistes ku si mel ni waa wal fajiri ba fa si lam ñes jógee ñëpp xam ne ni Ousmane Sonko lañ dem jox seen jox ko bopp jox ko lépp képp ku àndul ak Ousmane Sonko duñ la fa invité te je que boo àndalee sax président Macky Sall bëri na ñoo xam dañuy gedd boobule émission parce que dañ coté torturer. Euh, euh, mais sëñ Khadim mhm. est-ce que tamit du euh, ni yeneen leaders yi. Mhm. moo tax wal moom ne comme télé askan bi wal fa parce que loo xamante ni ñëpp a ko bokk bu ñu mhm. waxee RTS. moom mooy. Eh, télé bi nga xamante ni àdduna bi yëpp a ko bokk. Mhm. ah te ñoom du ñu boo seetloo du ñu invité seen plateau yi ku dul ku bokkul ci nguur gi. Mhm. est-ce que du loolu moo tax wal Walfadjri décentralisé moom tamit ay ay mbiram di di di may opportunité eh, ñeneen ñi fu ñu waxee. waa xam nga te xam nga RTS télé état la Sénégalais yëpp ko bokk certes mais tey dafi nekkal état état nag mooy ki nga xam ne dañ ko fay teg pour muy réaliser seeni projet am nañu droit génnee ko publier ko. ñu ngi invité tamit ay opposition mais ay opposition yu radical soxlawuñu opposition boo xamee dafay toog ci télé di saaga président di saaga institution naan génn leen toj dem Ousmane Sonko gis nga lu mu wax nee na bu fi manifestation amee bu ngeen demee toj kër leader yi di ngeen fa fekk ay milliards kon loolu am na benn point bi nga xam ne mi ngi koy def ci xale yi ngir ëllëg bu ñuy jug di manifester wu dinañ visé wu kër Macky Sall wala kër Farba Ngom wala ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey si état lañ nekk toj seen kër ngir génnee fa yooyu milliards te lu muy wax dara wóor ko si parce que ñun xam nañ ne moom tamit këram boo demee dajj ko da nga fa fekk ay milliards parce que si ta kër góor gi du caaxaan képp ku fa am terrain am na loo xam ne suñu borom jox na la ko boo njuujul njaajul am na loo xam ne tamit yaa ngi si biir ñun ñëpp xam nañ loolu kon RTS loolu tamit am na benn part de responsabilité dëgg la certes tamit tëddeewul njaaxaanaay qu'on se la vérité rek parce que lu état bëgg rek lay def parce que lenn rek moo ko andi parce que poste politique la poste politique la képp kuñ fa teg président Macky Sall moo teg ngir nga woy liggéeyam di politique kooku tamit dañ koy d'accord ak yow soxna Mati mais ku si mel ni wal fajiri man balaa meew ma wal wal fajiri ànd ak euh, Ousmane Sonko loolu ñoom la concerné Pape Alé ñaa ngi nii ñëpp xam nañ ko mhm. Ousmane Sonko la àndal waa baaba Babacar Touré Ousmane Sonko lañ àndal bëri na ay site internet yoo xamee ne Ousmane Sonko lañ àndal moo leen moom ba si ay influenceur ba si ay youtube ñu ko si nekk yaa ngi ànd ak Ousmane Sonko mais mosoo dégg Youssou Ndour ak luy mën a xew mosoo dégg Youssou Ndour wax baat bu ñaaw kii di Ousmane Sonko Youssou Ndour taxaw na fi yàggul dara si plateau ne Macky Sall dund bi dafa cher wàññi ko pourtant jot na ay menaces si au niveau de l' état jot na ay menaces lu nekk wax nañ ko ko waaye faalewu leen parce que Youssou Ndour bi muy def si réew mi boobu Macky Sall xamuñu ko ñun Ousmane Sonko mii di ñëw boobu ñun xamuñu ko mhm. Youssou Ndour def na lu rëy lu bari si li nga xam ne mooy réew Sénégal contribuer aussi man daal lu may mun a wax daal mooy mhm. ñëpp ñoo booloowul tant que booloowuñ nag jàmm du fi am mais mhm. man daal li may conseil président Macky Sall di ko conseil ñëpp Ousmane Sonko dañu ko war a éliminer éliminer nag waxuñu rey balaa ñu yóbbu sama wax éliminer nag mooy ki nga xam ne gënul ki nga xam ne mu ngi sa kaso ga di wax lu bon wala di dund affaire terroriste parce que ñu bëri jàpp nañ leen fi lu dul di yee fitna ak ñeneen ak ñeneen ko Ousmane ko tey mérité wul toog si këram wala si mbedd bi sa place mooy fële sa prison bu ñu tëj ko fa bu yar ko ba benn moment bu fekkee ne rek la nañu génne man loolu rek laa gis. Mm-hmm. waaw mais euh, yaay tey est-ce que nit mën nañ ko jàpp rek parce que yarawul ñu yóbbu ko ci prison tëj ko. <laughs> beneen problème a ngi noonu. Ah. parce que Ousmane ko yaruwul dañ ko war a jàpp est-ce que tey bu ñu doon jàpp ñi yaree di ku ñëpp yaay kon prison yi dina fees de. yaree di ku dafa am ay façon. Mm-hmm. mais man li ma gis. Mhm. jël ay xale ne leen génn leen. Mhm. rayante tuurante deret loolu bokkul ci bokkul ak euh, beneen dégât boo xam ne war nga koo def dugal la prison. mais est-ce que du xoqatal bi bi nga xam te ni ñoom jàpp nañ ni noonu lañ leen di xoqatalee est-ce que du loolu moo tax. mais nguur gi kenn mënu leen a xoqatal. non non xoqatal mooy opposant yi ñoom Ousmane Sonko ñoom Barthélemy Diaz. Mhm. et autres. ni euh, ni leen nguur gi de xoqatal waaw mais ñu seen seen ay liste yoo xamante ni du ñu am benn droit ci assemblée ba mais mais xam nga lu tax mhm. ni ñuy doxalee la nan waxante dëgg ni ñuy doxalee la tey bu ma nekkoon euh, di la liggéeyal ah di la sàcc mhm. su subaa boo gisee sa benn mbokk bu ma jël nga fekk ma fa di ko ne moytul kii kat sàcc la xam nga lan lan waroon def ànd booloo teg lépp ci taabal toog waxtaan mais pas de violence pas de reyante pas de xeex pas de xuloo parce que ñun ñëpp ay wax bu ñaaw ndax sëñ Bara Dolly am na lu mu wax bu wax wax bu ñaaw dafa rafetul ci kilifa mhm. Youssou Ndour dégg na lu ne mhm. mais doo ko dégg mukk mu tontu mhm. mais barke Serigne Bamba Mbacke bu bëggee wax Macky Sall dëgg da koy wax dëgg da koy wax dëgg parce que Youssou parolier la parolier la Youssou Ndour waayam yëpp wax la mook coon mhm. sekkayam mhm. kon kooku war naa man la tax Macky Sall jël ko teg ko conseil ci wetam am na lu tax mhm. waaw buñ ko saagaate tontuwuleen itam am na lu tax ndax nit ku nekk dañ laa waajal yar la te am nga kilifa waa TFM euh, franchement parler ñooñu ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi ndax Youssou Ndour da leen di fay TFM tey ku sañoon dem fa ku sañoon dugg fa tey da leen di fay du leen yoreel un mali ku ci feebar mu taxawu la ñoom ñëpp àndandoo def nii solidaire doon benn su amoon nu mu demee këram gee ba tey tas na wala mu yàqu da koo teg ci yoon teg ko ci temps kon Ousmane Sonko war naa mën a teg mhm. li muy def ci heure teg ko ci temps teg ko te xam ne doomi sénégalais la Mm-hmm. xale yi fi nekk ñooy mujj doon mag bu ëllëgee. Mm-hmm. te xale lu mu gis lay copier bu jotee ci réew mi violence bu ëllëgee itam képp ku bëgg a jot réew mi ci violence nga koy jot sénégalais xamul fitna bu rey gi tàmbalee deret ji tuuru ñu daw. mais mais mais yaay tamit xam nga violence dafa mel ni ne xaw naa yàgg ci réew mi parce que euh, Ablaye Wade balaa muy falu nii la woon deret yi tuuru woon bari na est-ce que du tamit moom bokk na sax ci ñi jàngal xale yi. ne xeex leen ak policiers yi wala xeex leen ak ñeneen. Ablaye Wade soo bëggee dégg dëgg. Mhm. damay wax rek man la président Abdou Diouf defal sama baay ak Senghor. Mhm. Macky Sall defalu ko sama baay Ablaye Wade defalu ko sama baay Ablaye Wade yaakaar naa ne dafa ñëw quelque temps sama baay dee wala sax fekkante wuñu fi Macky Sall wasaalika na ko noonu. Mhm. Euh, Ablaye Wade daf noo defal loo xam ne gis nga dëgg la yàlla bëgg yónnent bi dëgg la bëgg. Mm-hmm. bu dee du xaalisam sax mm-hmm. mais xoolal tey boo bëggoon a dem nga nawet wala nga jël oto sept place mu jaaral yoonu caaro yi bii nga jëm njaareem mm-hmm. des fois wala Touba euh, ndox mi day dagg yoon bi man ngaa def quatre de temps ci yoon feebar ak lu ne mën na la faa jële Ablaye Wade xàll àll bépp defal nu ko ay tali muy oto muy muy nu mu tuddati apayage bi lu mu fi bàyyi woon itam bi mu ñëwee Macky Sall croisé wut les croiser wul les bras mi ngi def wax fa dëgg yàlla mi ngi def li fi Abdou Diouf ah, kii def Ablaye Wade def. Mhm. kii def ko fi Abdou Diouf def ko fi Senghor def ko fi xoolal tangi Senghor ak Abdou Diouf ni suñ dëkk bi meloon mais Ablaye Wade bi mu ñëwee wax dëgg yàlla danoo avancé loo ubbi fi ay société yokk fi ay kii jël fi ay employé mhm. mais Euh, euh, mu mënuloo jël ñëpp yóbbu université nu jàng ami diplôme mhm. ñëpp fonctionnaire lañ bëgg a nekk université bureau la ñuy bëgg a liggéeyee mhm. doo bëgg a liggéey mécanicien bi doo bëgg a liggéey tailleur doo bëgg a liggéey menuisier lii pële fuuta yi def ci mbedd mi doo ko def te pële fuuta boo ci dem Guinée këram da nga koy xool ci kaw am na benn jàllu këriñ bu dëkk usine benn tali mhm. mi ngi et jàllu këriñam ay immeuble la ma ko tiim te buñ jógee dañuy saaga ma Sall di ko wax lu bon waaw mais tamit euh, dund gi sëñ xaadim cher na parce que est-ce que réew tali sa yor na ko est-ce que réew ay stade kese yor na ko parce que démb boo déggee ñaxtu xale yi dafa sax jéggi li nga xamante ni moo fa dajale woon yi muy problème mu liste da ngay dégg kenn ku ci nekk di def cri de li nga xamante ni moom moo la metti suuf si wax nañ ci ci la ci la kàddu sëñ Baara Dolli boobu génnee que ni Macky Sall bu invité ay jigéen ca pale ba moom it dafay eh, yër seeni suuf noonu la ko waxee du samay wax nag waxu sëñ baara doole la eh, waxu suuf si xale yi kaas nañ ko que ni jaay nañ lépp tubaab yi eh, dund bi fu kilo ceeb demee bay jar ay ay ay ay six cent léegi wala huit cent ci lu daan jar juróom fukk ki trois cent mais bu xale yi nangu wuta liggéey nan waxante dëgg mati bu xale yi nangu wuta liggéey ah xaw ma ndax jaay nañ suuf si xaw ma jaayuñu ko mm. bu xale yi nangu wuta liggéey suuf si tey bu xale yi nangu woon liggéey comme na Gambien yi def na leen yaaye jàmme def mhm. ceeb ba nuy dunde ci dëkk ba lan koy bayee mhm. ñàmb ji ci dëkk ba lan koy bayee légumes ci dëkk ba lan koy bayee bisaab beeg kànja gi lépp jëggaaniwulu dara mais xale yi dañuy bëgg di nelaw ba dix heures yeewu di laaj ndékki mhm. nanguwuloo dem liggéeyi mais buñ jaay suuf si defaat ko ci dëkk bii tam ba tey rek ndax ay li yàgg rek senegal ay jëggaani ñëw fii ñëw liggéey fi seen liggéey am fi seen xaalis dem seen yoon loolu waxante dëgg rek xale yi nan dem liggéey yi nan dem liggéey yi man gis naa ñoo xam ne bac S lan am ba plus am seen maîtrise ak seen lépp mais xam nga lan la ñuy jaay ay café ay beñe la ñuy jaay ñii jaar ci gaal gi naan dañuy dem pour am xaalis mbëkk mi dee ci àll bi tukki tekki am na toog fii tekki am na te ku nekk xam na ne Europe dafa metti dara amatu fa fu ñu demee ba France ñàkk diwlin nan seetaat nag àdduna bi nag nam fay demee. <laughs> ba pare Mati doogu ma ci côté. kii bi ngay wax dund bi. waaw dund bi man naa am fa muy jóge la mettee. Mhm. président de la république munu ci dara li mu man def na ko. Mhm. man xoolal Macky Sall xaw ma ko xamaanuma ko jabaram recevoir na ma teral ma muy Marème Faye Sall wax dëgg yàlla nekk nit ku baax. bi nu fii suwee dina ma neex ba taga témbe mhm. dafa yëkkati xaalis bari ne nu continuer leen ndax bëgg na ci lu ñu def foofu encouragé na nu fi nit ñi war na noo mën a rus sax président daal de la république euh, néew ma nag kenn moom kaas lu ko naqari mais war nañ koo mën rus ci bari ak saaga yeeg yu bon yi ndax soxnaam jabaram parce que mm-hmm. Serigne Touba. Mm-hmm. famille bu mu xettaliwut mm-hmm. xettali na sa mbokk d'accord te ku xam sa soxla faju ko fondation ba man dem naa fa wax fa dëgg yàlla gis naa na mu fa taxawee di fa jàppale ay jigéen nag lu nekk am na loo xam ne bu du sax ko génne ci caméra mhm. mais nan waxante dëgg te yàlla tax man ñu recevoir maa ñàkk maa war man su ma xëyee am cent francs sur pénal maa ngi sant Serigne Touba maam Cheikh Rafal mhm. léegi euh, sëñ Xaadi moom ci waxu sëñ Baara Dolli bi laa koy dugal parce que xam naa dina sawar ci côté boobu mhm. sëñ Baara Dolli li mu wax le président rek ci tënk ñu mën a dugg ci beneen chapitre parce que yàgg nañ ci Ousmane Sonko ji waaw loolu moo lay wane démb seen daje bi foofu nekkul daje bu sérieux ku si nekk da nga nekkoon foofu jéem a opinion bi sëñ Baara nag mënul yàq askanu ñu sant Mbacke Mame Mor Diarra mhm. ndax tuuti na si trop moom Mbacke la sant Macky Sall sant Sall mais Macky bu gën fuuf ñu sax benn parce que wax jooju mu wax du waxi kilifa te jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Touba. yaa ngi koy nakkarlu parce que loolu mu wax waxul dëgg dafay fen mhm. ay sos la je pense que ne président yooyu bu koy def sax moom du moom moo koy fekk mhm. ndax na si Mhm. moom nag depuis bi nga xamee ne amal na coow ay suuf jël ay suufu jàmbur si li nga xamee ne dëgg du yoon ñu nangu ko mhm. depuis boobu léegi seetlu nañu ne saa yu ñuy clamé wala di wax dara lu ñaaw si président Macky Sall moom moo koy jiite mhm. ñàkk na fayda ñàkk na jom amul respect ñàkk na teggin <laughs> réew na xamadina ñaaw na sànge na xëy na ñàkk maa jërëjëf jërëjëf dañuy waxante dëgg rek xam nga waaw mais d'accord dañ may ah? maman may foofu rek ma yegg euh, suñu xaadim non parce que uh-huh. man je ne défends pas le Macky en tant que personne mais en tant que institution c'est le président de la République uh-huh. le minimum c'est du respect uh-huh. dañ ko war a respecter mais démb boo gisee ba mu koy wax sax ay xalifa xalifa euh, Sall waroon na jommale boppam sax fu ñuy waxee loolu président Macky Sall muy toog te réagirul mhm. ay Aïda Mbodj Aïda Mbodj fii élection présidentielle 2019 toog na à 3 heures du matin président Macky Sall romb ma at ki nga xam ne mooy madame le ministre euh, nde maire Binta Gassama génne kër Aïda Mbodj maa ko gis fekkee ko lan mhm. lan lan moo fa xewoon lan lañ doon wax mais tey dañ ñuy nax rek ñun ñëpp dañ nax rek mhm. nga baara dolli kër Macky Sall lay reeree barki Seexul Xaddim loolu mu wax man gëm naa ne ba mu si paree woo na Macky Sall ne ko jéggal ma dama doon politique loolu man xam naa ko mais ñàkk fay la ay ci jërëjëf ñu ubbi beneen chapitre mu mel ni que rek euh, coowal stade bi fan yi bari na lu baree baree bari parce que ñu bëree bëri dañuy wax ni journaliste yi du ñu leen jox ak ak yelleef fële ca stade Me Abdoulaye Wade bi ci jam ñaajo bu match yi amee dafay am désordre amul organisation et ci côté euh, presse bi waaw xam nga manque d' organisation weesuwul sax premier match ba mu amee Sénégalais am problème mu dugg si stade bi. Mhm. fi ñu doon jaayee billet bi ñëpp fii jëppal romb naa fa man sax dama jàppoon ne accident la. Mhm. dama yàlla jéggal mais ba ma laajtee ñu ne noonu gars yi billet lañ jënd billet moo tax ñu baaree tali jëppal bi jënd billet képp ndax nit ñi mbooloo ba bari bañ fa bari nee naa leen léegi lépp dafa digital. Mhm. gars yi weesu nañ foofu gars yi dañuy toog seen kër jënd billet boo dem si dëkk yi nga xam ne dañoo développé yëpp. Matar Ba waroon na concentré wu si loolu man mi xaadim wala Ali wala keneen képp ku bëgg a dem stade bëgg a jënd billet je pense que ne war ngaa mën a toog sa kër laaj jënd billet ñu jox la benn code boo xamee ne boo ñëwee moom moo lay jàllale nga dugg si stade bi loolu supporters yi ñoo ko moom mais ñi nga xamee ne presse bi moom kenn respecté wu leen. Mm-hmm. war nañu xoolaat seen bopp foo mënti dem kenn joxu leen cër parce que ñu ko yàq mooy tey ñi nga xamee ne tey ñoo leen waroon jiital yéen. nekk seen kanam doon seen yaay doon seen baay. Mhm. tey ñoom ñoo jën génnee seen posture presse dem doon ay politiciens. Mhm. faral ma sàmba faral ma dem Demba léegi dañoo jël ñëpp dugal leen si benn tiñ tey Mati boo demee dañ naan la yéen ñëpp a yem vous êtes tous corrompus. Mhm. gëmoo leen dara fekk lu nekk si Mati nekkul si Pape Alé lu nekk si Pape Alé Niang nekkul si Mati. loolu nag la ñu war a jéem a xool naka lañ koy lijjantee ba presse bi am seen àq ak li ma leen wax tant que defoo leen ko du ngeen am jàmm journée sans d'information mm. Sénégalais yëpp toog duñ am benn information bu xew si réew mi ana presse comme que médecin yi mm-hmm. ñoom ñoo yor ruuy ruuy sax yàllaa ko yor na ma yàlla jege mais comme que médecin yi ñoom ñooy faj di dimbali ñi nga xam ne ñoo feebar comme que ñoom ñooy toog ni dootuñu faj parce que dañoo am lu leen métti ci réew mi mhm. pharmaciens yi nga xam ñoo jaay garab ñoom war a jox xaadim mu faju mhm. naan garab mën a wér comme ñoom ñooy tëj seen pharmacie ndax ñoom dañoo am lu leen métti ci réew mi mhm. yi sax léegi-léegi ñu toog ñu dootuñu kiiwati dootuñu jëndati benn marchandise benn marchandise te damay ñëw si dund bi cher bi comme comme ni nga ko signalé sànq dund bi cher na man maa ngi koy yëg bu baax ki doon jënd palaatu ceeb mi deux mille cinq cent bàyyi ko di bàyyi dem jënd mburu ak kon xam na ne fii dund bi métti na mais sikkim la ko ndoo la mhm. ku njëkk yuuxu rek da ngaa ragal mhm. qu'on se dise la vérité mhm. maire wax na ko sànq France fu mu toll ni ñu ngi jooy yeneen dëkk yi nga xam ne tey jii yëpp ñu ngi jooy kon pourquoi pas l'Afrique du jooy Sénégal nag dañoo jàpp ne moom euh, benn dëkk la boo xamee ne moom dafa spécial fekk du loolu dëkk bu ñàkk bu ñàkk maanaa la nag à part kilifa diine yi Sénégal moo gën a ñàkk maanaa si àdduna parce que fu ñu teg seen bopp la ñu yeggul ñun mënuñoo wax ne crise mondiale am ñu ne Sénégal du si bopp Mhm. Covid baa ngi fii am na yeneen te yaa ngi dégg dëkk yoo xam ne dañuy jaay baaraam onze millions Sénégal tollugul foofu kon ñun dañu sant yàlla mhm. bu dañoo bàyyi suñu valeur nag parce que sénégalais bu nekk mi ngi bëgg a añee loo xam ne day am fromage gruyère am saucisson fàtte nañu ceeb bi ak fonde bi ak li nga xam ne mooy mbokk ak dugub bi nit nag boo fàttee la la fal mhm. la la folli nag sa la nga bàyyi moo la lay jur ba tey euh, ñu desandi ci biir coowal stade ñu gis police ak gendarmerie yàgg nañoo dégg ni euh, dañuy dañuy rivaliser jubóowuñu muy police ak gendarmerie waaye dañ koo firndeel ci match bële passé mooy que ni dañoo gis benn agent euh, bu bu bu gendarmerie dóor benn policier loolu naka ban jàngat ngeen ci am. loolu ci manque d'éducation la xëy na kooku euh, policier nga wax moo dóor gendarme. gendarme agent benn agent moo dóor benn benn policier. Mhm. kooku xëy na dafa réew. parce que am na ci ñoo xam ne dañoo réew amuloo respect. Mhm. nit ki même boo dikkee di ko jàpp si. am na noo ko war ñëwee di ko jàpp si mandat de perquisition dañ la koy jox procureur la koy moom moo ci moom lay jógee mhm. wala mandat d'amener ci procureur lay jógee à partir de sept heures du soir nit amul pour benn homme de tenue budul dañ laa jox euh, ordre nga dem jëli nit ki mhm. kooku xëy na dafa réew mhm. moo tax mu def ko gis nga sunu homme de tenue yi barke maam Cheikh Rafal dañ leen a war a mën a sant gërëm leen ñoom ñaar en fait yaay ñoom ñaari homme de tenue lañ policier ak gendarme ñaar xam naa ne ñaar lañu mhm. ku ci nekk da ngaa war a fonk sa moroom koor bu ne da cee war a fonk sa morom mhm. ndax ñoo yem benn lañu dañ ne gendarme ne police mais nit ki su fekkee ne <clears throat> danga nga réew mhm. yaruñu la foo dem fa ngay jaay reewande ndax bu fekkoon ne moom dafa service sax moom ci boppam war naa mën a respecter tenue bi ba ay dóoranteeg yooyu yëpp du ci am xam nga sénégalais lan mooy problème am euh, nan la jox benn liggéey rek na la yaay see yaa. Mhm. war yaa war a diriger. yaa war a kii. da ngay xoggali koy def lu la neex. gendarmerie diriger police. waaw bu nu ñëwee pour jàpp si la sax dañ lay torturer di la def lu leen neex. Mhm. ba yóbbu la buñ la yóbboo di la toroxal di la wax la dañ laa war respecte respecté ba jébbal la procureur de la république. Mhm. war a respectante ci biir ay stade ak cérémonie fu mu war fu mu manti doon. parce que bu taxawee def loolu. am na xale boo xam ne tey bëgg bu ëllëgee bëgg naa doon gendarme wala mu doon policier. Mhm. bu ëllëgee xale boobu mën naa xool loolu def ko ci maayinam bu ëllëgee mu manqué de respect moroomu borom tëneem mhm. te ñoom ci seen bopp borom tëri borom tëri bu fa dara amoon tey da ngay den di gis muy pénitencier di gendarme di policier da ngay gis ñu daal dañ lay solo robe bu gudd couvert couverture la mhm. ñoom ci seen bopp kon lu tax ñoom waru noo mën a àndandoo muy police ak ma ñoom ñëpp nu joxante respect doon benn. Mhm. Euh, sëñ Xaadim geste boobu noo ko dundee. waaw mais bett ma parce que xam nga ñun lañu gën njëkk manque de respect parce que tey <laughs> ñun ñi ñun ñi nga xam ne bokkuñu ci benn corps. Mhm. buñ ñuy laaj pièce d'identité rek. Mhm. dañ ñuy yuuxu wala dañu saaga permis rek sax bu ñu koy laaj dañ ñuy saaga wala duñu yuuxu. tey bu fekkee ne nepp nekkoo nekkoo n'importe qui ci réew mi boo duggee police di laajte kayit sax. këyit rek ngay laaj yow defoo dara sàccoo fenoo da ngaa ñëw pour laajte këyit lu ñu la mhm. njëkk a def mooy yuuxu la di la jéem a mhm. di la jéem a wax ay baat yoo xam ne neexu la parce que ñoom dañoo dem ba naw seen li nga xam ne mooy seen tenue mhm. gendarme nag ak police ñoom yaa yàgg nañoo rivalente fii si réewu Sénégal te je pense que loolu nag bu demee ba am sa dëkk kon dëkk bi nag am na fu mu bëgg a jëm te loolu nag ñi nga xamee ne ñoo yor ñoo ŋànk boobu les corps procureur de république mhm. war na jël ay matuwaayam parce que gendarme dem ba di mbaj policier mhm. bu nañ xaar leneen nag ëllëg luy ñëw suba mhm. waaw nañu respecté ñun ñi nga xamee ne ay citoyen lañu te duñ bokkuñu si benn corps te ñoom ñun suñu xaalis la leen di fay l'argent contribuable mhm. bi nga xam ne yow mat yaa ngi si contribuer maman Aïssa mi di si contribuer man ma si contribuer Aliou ak soxna si ku nekk di contribuer la ñuy yëkkati di leen fay par weer mhm. mais le minimum sur le respect mais respecté wuñu Sénégal nag moo dem ba jaxasoo te jaxasoo bi lenn képp la gis nga tànk waa ji di wax di génn dugg nee naa leen mhm. mooy posonu réew mi du Unku réew mi du Ousmane Sonko tànk juguñu si moom ndax Sénégal moom ba mu ñëw si réew ba léegi la ñu gis démb gis nga la mu wax foofu noonu mi ngi jéem a jaxase ñi nga xamee ne mooy policiers yi ak gendarmerie ak ki nga xam ne moo leen jiite mhm. bu leen waxee bu leen ko def bu leen ko déglu dañ ko jox ay alal jox ko ay privilège moo waral muy def lu ñu mel loolu déjà jaxase la bu fekkee ne ki nga xamee ne mi ngi lay déglu ñàkk gis-gisam gàtt na li muy njëkk a wax ne Ousmane Sonko wax na dëgg man dinaa def loolu bu ma di waxee defal ni dootuma ko defal kon Ousmane Sonko dafa jot ñu arrêté ko ndax sëñ Mountakha wax na déggul Mm-hmm. vidéo yëpp ko seetaan sëñ Mbaye Sy Mansour wax na déggul Khalifa Niassène wax na déggul kon moom dafa am lu ko tax a jug li ko tax a jug nag du leen lu dul Casamance mm-hmm. waa Casamance ko yónni rebelle ko yónni nit ñu bon ñoo ko yónni juste pour mu ñëw influence sénégalais yi ak ñi nga xamee ne ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ndax histoire Ousmane Sonko yàgg na plan bi ñu teg juste pour mu yor réew mi may indépendance waa Casamance mm-hmm. yàgg na loolu mooy dëgg man duma ko ragal a wax mhm. maa ngi fii si réew mi yoruma oto si tali bi laay dox lu waaye di euh. ko ëppale ku ma sama bakkan daal jox naa ko Cheikhul Khadim yàgg na mhm. lu si waaye mën na ko def mais dëgg bi moom tant que ñu ngi toog mati fii di ko wax mhm. dañu koy wax Ousmane ko mooy posonu Sénégal mooy unku Sénégal lu yoon te luy lett wóor nag mooy nañu ko éliminer ok euh, fi ñuy tëjee nag euh, mooy li nga xamante ni moom mooy benn xibaar boo xam ne fan yi yëpp mu ngi lëmbe internet bi hmm. lëmbe réseaux sociaux yi maman yaa ngi reede <laughs> <laughs> mooy lëmbe te xam naa ne yaay loolu moom dinga ci sawar balaa ma ciy jox sëñ xaadim kàddu yow laa ci jox muy diggante saajo Mané ak Zeyna Ndour bi nga xamante ni euh, dañoo xëy rek gis réseaux sociaux yëpp di bind que ñoom dañoo am relation wala sax da koy waaj a takk <laughs> euh, mais man loolu gis naa ko ci TikTok beeg fépp. Mhm. mais Sadio Mané am na droit xool xale bu ko neex. Mhm. mu doxaan la takk la. Euh, euh, Zeyna am na droit seet ku ko neex il est elle libre comme bonjour ca parent parce que citoyen la doomu jaambur la. Mhm. ni ñeneen ñi libéré li libéré. du doomu ma rakk Youssou Ndour la yaayam star la. Euh, mu warta mën génn taxaw fii warta mën a kii dafa war a mën a am liberté am. nekk ci lu ko neex. loo xam ne nii kenn du ko ca fekk di ko yet ndax mhm. doomu gawlo la bàyyam doroobe Aali Njaay la mhm. maag ñoom yuusu suñu ñetti maam yee bokk ndey ak baay sama taaw yuusu nduura ko ngénte fii ci gaar bu mag bi moo jënd xarma ma mhm. jaayam laa doon sëyal ca biir kër ga laa doon sëy rue 33 kër maam mari seen li may wax ragaluma ko xam naa ko bu baax a baax a baax keroog ba mu ne cëpp jóge mbuur Youssou Ndour gis ko woo ko sama kër la njëkk a wàcc asalem angle muus mhm. ñëpp xam nan ko fekke nan ñi ko fekke woon a ngi fi nu mu ñëw ay musiciens yoo xam ne comme moom la dañuy àndandoo di jouer ci cabaret yi mhm. ñoom dafa fekk si ku nuy wax pacaa benn càmmiñam benn frère mu ñëw fa fa la jóge itam signé ji contrat am ak Youssou Ndour fa la jóge itam dem jëg dëkki première dëkkam jëppal Mm-hmm. moo accomplir nag mission bi ko baayam joxoon mm-hmm. Viviane nag nan waxante dëgg géej naa koo gis demuma ci moom awma numéro téléphone sama kër ba fay géej defe naa ne deux mille euh, kii la woon mi xam naa ne quatre vingt la wala quatre vingt mm-hmm. waaw teguma ko bët gisuma ko mais nekk na jigéen boo xam ne jigéen bu baax la say waru daal la bakkan la am yàlla tax dogal digganteem ak uh, buuba yàqu bu dem mu dem mm-hmm. uh, mais sama bàjjan day soxna gërëm na ko sant na ko te itam samay mbokk yu nekk uh, ca kër ga kër ma mari seen lu rafet rek la ñuy wax ci moom fonkoon na goroom mm-hmm. fonkoon na sëyam fonkoon na lépp kon war naa mën a am doom ju baax ndax Philippe kenn gisu ko ci dara lu ñàkk fayda naa mm-hmm. Zeyna itam kenn gisu ko ci dara lu ñàkk fayda doroobe Ali Njaay la tey jii Sadio Mané bu taxawee ne da koo bëgg war naa mën a ne mhm. waaw parce que mun tataku la ku ko gën ci réew mi nag nan waxante dëgg rek sénégalais yi xam nga lan lan war a bàyyi toppatoo seen soxla mhm. lijjanti seeni programme seeni business te bàyyi Viviane Amina Poté mhm. Youssou Ndour kii ak kii ñooñu ñu ngi ci ñu ngi ci yeneen vibes et loolu d'autres chats à nekkunu naan lii lii kii nii nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam Viviane foo ko fekk mu ngi ci ay vibes sam soit moo ànd ak ay doomam di kaf di fo na dañ lay xool Sénégal rek bëgg laa collé motif bañ la rek di la wax waaw ndax doomu Bouba Ndour la Bouba Ndour ak Youssou Ndour a bokk ndey ak baay mhm. man ci mbedd mi laa nekk bés yàlla sàkk damay dégg no am lu nu wax ci Youssou mhm. ma taxaw tontu ko ndax Youssou Ndour gëj naa koo gis te yaakaar naa ne ba mu ngénte see sama doom ji ba mhm. dem ma TFM seetuma leen seetunu ma mais damay wax te yàlla tax du lu nuy samay mbokk a tax bu nekkoon samay mbokk sax te bon vraiment Sadio maane am na droit dem gis doomu Viviane doxaan ko takku ko. Mhm. fii ku xalamut yaa ngi riiti ku newut ci rang-rangu bi yaa ngi ci bu Kédougou wala bu Matam. tey loolu. <laughs> aji suñ xaadim boobu diggante. Mhm. non. <laughs> peut-être nag yaa may dugal foo xam ne du sama du sama domaine quoi mais dinaa si wax tuuti. Uh-huh. xam nga Sadio Mané moom dëkkale nañ ko fu ne. Uh-huh. kii Zeyna mii moo si mujj. kii bis uh-huh. jaar na fi ku ne jaar na fi. Zeyna moo si mujj ñoom ñaar daal bu ñu bëggantee na leen yàlla jàppale ñu sëy waaye si ni ma xamee Sadio Mané. ak li nekk si moom gëm naa ne jabaram du jugee foofu quoi. gëm naa ne di Bambali. Bambali gëm naa yaayam daal moo ne ko takkal kii quoi ndax yàlla dimbali na ko ba moom nekkul si étape bi nga xam ne moom la gars yi nekk. star laa war a takk ku siiw laa war a takk wala doomu borom barke laa war a takk moom nekku si état boobu gars yi nag moo réseaux sociaux bi nag moo demee noonu mhm. dañ koo xamalu dara sax xaalis bëgg koo ñuqatu voilà gisuñu gelam mhm. gisuñu dara allah Diouf jaar na Fadiga jaar na fi ñoom Henri Camara lu ne dégg nañ ko mhm. danoo bëgg a ñuqati seenu xool fa mais mënunoo fexe ba gis galub Sadio Mané du noppalu du noppalu ñu luqati galub ba ne gis ko jël rek nu mu tuddati dal dal ko ci Seyna Ndour wala ci keneen ak keneen ak keneen mm-hmm. Sadio Mané mën a génn léegi takk jaaykatu gerte wala ku yenumaat di wala jaay nu mu tuddati mm-hmm. fóot kat mm-hmm. on sait jamais ah mais Sénégal mooy loolu Sénégal danoo war a bàyyi sujet à travers matima waxati ko suñ jógee di saaga nit ñi ku wax dëgg nu commentaire la wax la lu bon saaga la wax la loo xam ne seetunu yomal xayaam seetunu dara buñ xoolee jeunes yi ni ñuy deewi di putti putti ber benn benn mhm. wóor na jëmmi Serigne Touba war na noo seetaat seen bopp mhm. waaw ay ca jëf war nañoo seetaat seen bopp l'émission tire à sa fin euh, noo noonu rek laay jëlee kàddu gi di leen ko jox kenn par kenn mu joxe ay dernier mot boole kook tàggatoowam waaye nag sant bu baax gërëm waa diaspora bi di kontaan ci waa Canada surtout ki nga xamante ni moom mooy Oulimata Gaye di ko bëggee lu baree baree bare maman Aïcha bàyyi ñu bàyyi la rek nga wax say dernier kàddu tàggatoo waale samay dernière kàddu xam nga mooy lan mhm. lenn laay wax xale yi bu kenn génn mhm. ne damay jël pouvoir bi tey génn leen ngeen rayante nu rëy leen ngeen dee seen yaay yi ñàkk da leen a yónni yàkkamti violence bu leen ci dugg mhm. bu leen kenn defloo lu mu leen warta defloo bu leen kenn dugal ci loo xam ne ni bu ëllëgee da tey am yaay ma yónni loolu laa am ci lu ngeen wax te ngeen bàyyi wax ju ñaaw ji ngeen di wax ak di saagante doomu nit ku yiw nit ku yiw rek lay doon mhm. nan leen civiliser tubaab nee na ce n'est pas la beauté qui compte mais c'est la civilisation qui compte mhm. civilisation nag defe nañ ne sol jasneer bu rafet wala pirxa wala borode mhm. la civilisation c'est ici fii la ne ci bopp nit ku dul réfléchir man je crois que mala waaw bu leen kenn dugal ci benn nonsense man de sama doom bu événement amoon du génn mukk dikk loolu moom ñoom ay naandite leen sax ki dama ko wóodee mu la ne mun ne ma yee dugguma ci yooyu mm-hmm. su may ñibbi damay wii rek sama welo romb ma sax obélix mm-hmm. wala jaral na ma ma fanaan ko la ndax bëgg na bakkanam bii xale bu góor la bëgg naa am ay doom am jabar mm-hmm. waaw di nuyu nag waa àdduna bépp di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu waa États-Unis di gërëm euh, DG production nga xam ne nii tey jii moo ma sant ba teg ma fii di ko sant di ko gërëm di nuyu nag Gambie yee yëpp samay waay lanu Gambie moom sama dëkk la di nuyu waa France waa Italie di gërëm sama doom bu baax bu nuy wax Fat si mhm. waaw euh, le douze bi la sama anniversaire mhm. vraiment ma di ko gërëm ma nga def lu nekk cadeau yi maa koy récupéré de ah yéen ñii ñëpp sëpp dama leen a invité pour nga ñëw ci anniversaire cadeau yi maa koy récupéré waaw ma sant di gërëm di gërëm Bamba mi ma toogal muy mhm. sama doom vraiment di xaritu baaba di gërëm nag Basirou Ka Basirou Ka dafa baax de Bamba maa ngi lay gërëm Basirou ka fdéeri borom nag ak meew borom soow mi ndeysaan baaba I like you so much my baby <laughs> merci beaucoup maman noonu la c'est normal sëñ Xaadim waaw jërëjëf soxna Tima waxtaan bi neexoon na mhm. mais benn question rek laa ni posé yéen ñi nga xam ne nekkoon démb si manifestation am ndax da ngeen gis doomu Ousmane ko foofu waaw <laughs> vraiment foofu bari woon na nit ba doo mën a ràññetle kenn man moom franchement bu ma gisoon doomu Ousmane Sonko sax du ma mën a wax ni kii euh, doomam la wax dëgg yàlla gisuma ko non gisuma ko gisuma ko te gisuma tamit ku présenté ni kii doomu usman Sonko la waaw gis naa Sonko gis naa Sonko gis naa Barth gis naa Ahmed dara <laughs> euh, gis naa ñu bëree bëree bëree bëri mais vraiment gisuma woon doomu Ousmane Sonko voilà kon je pense que ne wax ji leer na. Mhm. bon man loolu sax xamoon nañ ne da doon wax noonu rek ndax fii ku fi njëkk wax damay génne samay doom. Mhm. Barthélémy Diaz la te je pense que ba muy génnee doom dafa wut BM bu rafet belende mhm. sol leen costume bu rafet sang leen ba ñu seet dugal leen utal leen ay sécurité. kon ñi nga xam ne tey jii peut-être amuñu yaay bu leen wax toogal wala respecté wuñu doomu jàmbur yi ñoom ñoo doon dox ñu leen di sànni gaz leen tiire ay bal ñuy leneen leneen kon je pense que ne ñoom. ñooy fooyee seen xel ba di fooyee ñi nga xam ne amuñu xalaat mm-hmm. dem manifestation ba nag je pense que ndaw ñu fa nekkul ñëpp nekk fa amuñu conscience tranquille amuñu xalaat mm-hmm. amuñu xalaat bu ñu amoon xalaatu àdduna dëgg mm-hmm. foofu duñ fa toog parce que la lañ fa doon wax Macky Sall saagaat xasteeg kese lañ fa doon wax amul lenn loo xamee ne andi nañ ko ay solution pour dund bu cher bi oh. amul lenn loo xamee andi nañ ko ay solution ngir mbënd bi luy jëmee askan bi kanam mais saaga xaste rek lañ fa nekkoon kon cela veut dire que si ay caaxaan la ñu nekkoon ak képp koo xam ne taxaw nga fa si ay caaxaan nga nekk loolu man maa ko wax te je suis libre pour wax ko di lancer benn appel rek président Macky Sall mooy njiitu réew mi. Mhm. te si kàttanu yàlla fekk ñun ñi ngi dund yàlla di ko bëgg di ko soob moom moo koy doon ndax yàlla rek moo fiy teg doomu aadama. bu fekkee la ñu gis dem moo leen sonal jaaxale ñu jàpp na ñoom ñi ngi si ñoo yor majorité bi je pense que dañuy nax seen bopp te amuñu expérience defe naa ne si jamono ji nga xam ne Ahmed Aidara mi ngi fële si manifestation bi di wax di yuuxu. soo demoon buntu meeram démb am na ay mobilisation yu fa toogoon ne Ahmed Aïdara fay ñu suñu salaire te lii c'est la première fois ñu dund ko depuis Aliou Sall ba mu fi nekkee ba léegi Aliou Sall su fa tardé di fay salaire kon moom bu fekkee day doog toog fayagul salaire parce que amuñu jot di lijjanti salaire kenn amuñu jot di lijjanti waa géeje waaye moom ak maire ki nga xam ne moo yor maire euh, maire golf ñi ngi taxawaalu fu Ousmane Sonko nekk ñu ngi fa fu Ousmane Sonko maanaam Ousmane Sonko bu duggee duus sax ñoom seen jëm bopp jël ndox ne ko am defal nii kon je pense que ne nit da ngay fonk sa bopp bu paree nit warulaa gën judd Ousmane Sonko gënu leen judd nañu respecté seen bopp xam ne fii yàlla suñu borom mooy dogal nguur jox ko présent Macky Sall Macky Sall nag ni mi ngi liggéey ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne jamono ji euh, l'Union africaine moom mooy ki nga xam ne moo ko jiite mm-hmm. defe naa ne dem bi nga xam ne dem na si Poutine euh, jëlee fa ndam moo leen a metti metti boo xamee ne jàpp nañu ne loolu mun na leen sëlam si lépp loo xamee tey ji ñoom ñu ngi koy def mhm. en tout cas daal maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a mhm. baax di wax ki nga xamee ne mooy Mouhamed Bilal mhm. euh, di ki nga xam mooy mooy maire euh, Kër Massar Sud na moytu boppam ndax président du moromam man mii di wax ak moom yàgg naa ñëw wala mu may woo ne ma carrément xaarim aw ma expérience bii aw ma expérience lii ma koy dimbali ba tey suñu borom dogal mu jël mairie bi je pense que tey bu fekkee dafa am dafa jël mairie rek boobu mu waral fu mu dem tey si télévision yi wala sax di filmer boppam du dem si télévision parce que mm-hmm. kenn invité wu kenn xamuñu ko ñàkk xameel boobu moo waral sax day dugg si kër gi ne man maay seen maire war na xoolaat boppam président du moromam man mii sax di wax du ma moromam parce que yàgg naa koo teg si code na mm-hmm. jéem a xoolaat toogaayam te xam ne te wax naa ko mati nee naa mairie yi ñu fi fal yëpp si mm-hmm. Pastef yooyu askan benn mandat la ñu am yàgg naa ko wax te je te loolu mooy am mais di la jaajëfal si liggéey bu rafet bi mm-hmm. ah, di leen wax yal na leen yàlla musal cat yàlla musal leen si seytaane mm-hmm. ndax seytaane moom fu mu xajul rek lay dugg mm-hmm. yal nañ ko yàlla musal ñun ñëpp si barke alquraanu karim di wax ne maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal say technicien Aliou ak ñëpp jaajëf jërëjëf merci beaucoup di leen wax rek bien des choses à tout le monde rendez-vous à très bientôt fii lay xewee sous l'arbre turu yaay booy la et yaay booy joyeux anniversaire encore balaa balaa bés bi di ñëw ñu lay souhaité ñun ñëpp un joyeux anniversaire ñaanal la gudd fan ak wér nga yàgg ñoo gunge yàgg a toog ci plateau bi te suñu borom bàyyi la ak euh, waa DS Prod yëpp ci barki sangu-sang yi ay ci remercier les technicien di leen jaajëfal bu baax a baax nee naa leen su doon woon yéen làmbaay ñaaw bu ñuy ñëw nu ñu neex la ñuy mel waaye boo leen ñu jàppee ba bàyyi ñu tubaarkàll bu ñu génnee belli jërëjëfal jaajëfal leen bu baax a baax waaye sant gërëm oustaz tamit mu ngi ci biir waaye di kontaan ci Seydina Alioune mu sell mi ah noonu la Seydina Aliou mu sell bi wala mu mu xawma lan bi ajeen sama technicienne bi waaw mu jaajëfal ko bu baax a baax loo tuddoo <laughs> ah Binta merci beaucoup ayca rendez-vous à très bientôt ciao